Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi te na comme ni ñu koy defee saa su nekk dañoo wàccaate sur le terrain ngir waxtaan ak sénégalais yi li euh, ñeewal wàllum feebar boobu nga xam ne mi ngi def ay ravage fële ca Chine muy euh, coronavirus. Euh, Euh, foofu ca nag am na étudiants yoo xam ne dañoo jóge Sénégal euh, di fa jànge ñooñu nag di sàkku dimbal rek pour ñu indiwaat leen fii ci seen réew ngir mucc ci boobule feebar mais nag ki nga xam ne moo di président de la république dafa génn rek ne amul les moyen pour indiwaat yooyu les étudiants tax na nag ba ñeneen jóg ñoom itam ne dañoo jóg pour euh, dimbale yooyu les étudiants pour indiwaat leen ñuy laajte rek sénégalais yi lan moo ci sa lan moo ci seen xalaat ndax politique moo ko lal wala dañ ko def rek ngir ngir yàlla voilà ñu ngi ñuy laajte nag Sénégal ñuy laajte nag sénégalais yi ana lan moo waral boobu leen mbir politique moo ko lal wala dañ ko def rek ngir yàlla laaj leen tamit euh, président Macky Sall voilà bu ko defee rek ngeen topp ma ñu laajte sénégalais yi lan moo ci seen xalaat. réew mi amul xaalis soxna réew mi amul xaalis su Macky Sall mu ne mun mën na jël avion pour jël ñin ñooñu dañuy wax tamit ah loolu neex rek imagine ça citoyen bu nekk. sëm réew en tant que président de la république Macky Sall bu amoon moyen yooyu tey ji tey ji kenn ko fi jiitu tey mais nag dañu war a xam ne amul moyen ñële doo teg foofu noonu su boobu du benn dëkk ni ñun ñaa ngi ña nga naan dëkk yaa ngi dem ji jël nit ñi non non non non da dëkk yi am moyen ñoo ngi koy def mais dëkk yu amul moyen ñu koy def fii fii Afrique la ci Afrique ah feebar bu ndaw dafa gaaw wàll si ñun dañuy ñaan yàlla ñaan étudiants yooyu su boppam si barke Seydina Muhammad saasam mu muñ àndax dal Bougane Gueye Dany loolu muy wax noonu Bougane ñëpp xam ne Bougane politicien la Bougane day politique ca Bougane ñi nekk si ginnaawam mooy loolu comme si nag Bougane nag day politique nag lii kenn du ko mën politiquer lii mooy jax nam dama jax si réew mi dama bëgg taal réew mi ne mais Bougane tuuti na pour taal suñu réew mi mais lii bu ne moom mën na décaissé xaalis boo xam ne carrément ay milliards bu xam ne pour jëli foofu noonu su boppam mais Bougane day wax lu ko Bougane mais Bougane day wax lu ko neex. je pense que si c'est par rapport, que si c'est un homme qui a un cœur, je pense qu'il le fait volontairement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais euh, on ne peut pas euh, euh, éviter le fait ce soit, mm, ce soit quelqu'un qui veut se présenter aux élections, qui soit contre le gouvernement. Donc euh, moi, à mon humble avis, je pense que ça peut être une stratégie, mais si c'est pas, si ce que je pense ne l'est pas réellement, si lui il a un autre point de vue en tête, bah moi je, je, lui souhaite juste euh, bah, un bon courage. Je suis derrière lui parce que moi personnellement, je pense que si j'étais à sa place, euh, j'allais également mettre des moyens pour pouvoir euh, rapatrier les autres. À ah, il a fait comme, un citoyen. Parce que Macky Sall, président, il n'a pas pu faire ça. Si Bougane le fait, c'est son problème. En fait, euh, li ma gis ci jàngat bi mooy que ni affaire de coronavirus bu ñu waxee wàllum pour ñu jëli nu mu tuddati ndaw yi nekk biir Chine. Hmm? mooy étudiants yi fa nekk en fait man pour man sama xalaat bu gàtt euh, wàll wàllum euh, nu mu tuddati euh, vol médicalisé loolu amul xam nga suñu doom ñoo fa nekk suñuy mag suñuy rakk suñuy kii xam nga li ma la tey tey jii nañ jël ay médecins dugal leen ci vol yóbbul leen foofu xam nga li ma la jëli suñuy suñuy grands frères yu fa nekk yoo xamante ne nii instant bi ñu ngi ci tiitaange ñu ngi ci njaakare wàllum li Bougane gay dañuy wax man mun naa ne loolu du affaire de politique xam nga affaire de affaire de bëgg sa doomu réew xam nga maanaam Macky Sall daal man li ma gis moom mu taxawee ci affaire bi man bu ma man bu mu sama gis-gis bu doon doomam la walla wala am mbokkam bi fa nekk du fa fanaan pour man du fa fanaan mais xëy Euh, li mu nekk ñeneen moo tax muy jéem a négliger affaire bi mais lii nii du lu xamante ne ni koy négliger tey tey jii am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xamante ne nii am nañ moyen bu bëree bëree bëree bëri bëri boo xamante ne nii waruñu xaar kenn ci lenn pour jëli ñooñu quoi en fait. Euh, li ma ci gis daal mooy président ci moom warul seetaan parce que doomu njóoboot bi njobootam la. suñu demee bi nekk ay tolof tolof ak nu mu mënta def da ci war a seet ay pexe daal lu mu ci mën a kii ba génn ci daal doomu aadama yi doomu doomu réew ñib si waat ci seen réew mais warul du muy war a warul wax ne amul moyen loolu daal waru ko wax waru na wax beneen xalaat bu dul loolu président Bougane Gueye Dany itam yàgg na def ay social lu dul lii itam lii da ko fekk muy def ay social yàgg na ci waaw kon nag su waxee lii itam dañu war a ñëw fekk ci jàppale ko pour doomu réew d' accord d' accord d' accord Bougane Bougane noonu lay def d' accord noonu lay def mais wante dama ne la lu loxo président dugalul mënul dugal loxoom kenn mënul si dugal loxoom bu dëgg jotee nañ ko wax bu buy na la kaay sangu na fekk nga mën a ragg sa bopp. Bougane nañ na yem si télé ma xam rajo boobu ñuy ñaanal yàlla nañ dalal xel adduna bi dal xel njaboot si ñooñu si boppam xamal na leen seen doom ñooñu dara jotu neen parce que dégg naa ministre de l'intérieur bi nee na ñooñu ña ngi leen surveiller déglu naa ko démb ña ngi leen surveiller ña ngi xool si ñu nekk jox ne leen ay numéro pour ku nekk sa famille ñu déglu. kon bokk kon bokk loolu rek man man man rek loolu rek dal na sama xel ah man dama par personnel loolu rek dal na sama xel yal na yàlla def jàmm si réew mi yéen ñi tamit ah yal yàlla def yokkute mel ni wér mel ni jàmm salaam su bëgg seen merci. oui je pense que le président devrait le faire parce que ce sont des étudiants et euh, en Chine actuellement il y a le coronavirus et voilà c'est un virus qui tue. Donc du euh, je pense que le président devrait le faire. Euh, de rester mobilisé et d'essayer de se protéger le maximum possible en attendant qu'on trouve une solution si euh, on les rapatrie ou pas. non affaire bi affaire bi du affaire de fond de de de de trop xam nga affaire bi. affaire bi affaire de kii la euh, nu mu tuddati tey tey jii Macky Sall ci boppam dama li ma la wax sànq rek bu doon doomam moo fa nekk wallaahi lazim du fa fanaan dafay da koy jëli fët waaw mais euh, en tout cas daal affaire daal xaw ma nu mu demee noonu mais en tout cas nañu nañu nañu jéem a jàppale ñu fa nekk quoi pour ñu jëli leen li Bougane gee Dany li mu tàmbali nii moom moom wax dëgg yàlla na ko na ko yeggali quoi jëli ñeenee parce que affaire du affaire de politique affaire de waaw affaire de kii la ko koo xamante ne nii ay bakkan yoo xamante ne ñu ci risque waa du affaire de politique. en fait étudiants yi maa leen di wax ñu ñu dar rek xam ni euh, lii nii ndogalum yàlla la aussi nañu muñ quoi xam nga tamit nañu bañ a génn génn gu bëri parce que virus bi moom kenn xamul ci fan lay jugee waaw nañu yem fu ñu leen yem loo waaw mooy loolu daal ba yàlla def jàmm rek. ah waaw dañuy essayer rek dañuy jéem rek dañuy jéem rek dañuy jéem rek essayage la rek ñu jéem rek mun nañu essayer ñu jàll mun nañu essayer itam sukkul itam ñu seet beneen pexe rek président seet mais président daal mooy lépp moom mooy mooy ndey mi bi daal waaw ah waaw moom moom président moom mooy lépp président moom mooy moom du a parce que moom mooy lépp moom parce que Bougane moom du président citoyen la waaye moom ay xalaatam ak ay moyam lay joxe rek mais nag président moom mooy lépp ñu muñ rek di jàpp ci yàlla ñu xam ne nattu la yàlla nañ ko yàlla saafaral te dellu si daal ci réew mi wala mu saafara leen ñu ñu wër ba dëkk bi nekkaat ci jàmm mu continuer lu lu leen taxoon jóg. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.